di feddalewaat sunu taalibe si sa wet di waxaat sama mbégte ak cant gu may sant suñu borom bi mu ma mayee ma ñëwaat fekk la fii ci Touba ci waajal bés bu màgg bi di màggal sëñ Touba taxawal ko ngir sant boromam ak ngir ñu santale ko boromam ma am nak mbekté si dila fi fekk moo tax ñu ñaan yalla yal nga fi yag lool te and ak wër ñu yag di fi fekk a di la yit ci sumbu bi nga xamné yang ci dox dox yu am solo lu bari la ma ngi sédé askan wi yépp suñu señ Muntaxa bi nu yàlla ba lu jiitu may jot ci réew mi ci njaareem la woon ma ñëw fekk ko ci ab fulk mu won ma ab ñeewanteel won ma ay ñaan ñaanal ma ba màggal gi jiitu muy toog ci xilaafa gi ma ñëw fii ñu jullee ndoo ci kër sëñ Touba ci biir néeg bi nga ne ma bul xool nit ñi li ñuy def yow sëriñ bi ngay liggéeyal te ku liggéeyal sëriñ bi dana la fay kon man ci loolu rek laa nekk li may def Touba xaaruma ci cant xaaruma ci ngërëm ndax la mu wax ci loolu laa nekk te may seede yi ne mosuma dënk benn soxla bu jëm ci moom mi wala ci njabootam benn yoon lépp ci dëkk bi la ak ci askan wi kilifa gu mel noonu nag buñ ko amee dañuy ñaan yàlla mu bàyyi ko fi mu yàgg lool ndax dundam njëriñ la ci réew mi njëriñ la ci lislaam bi njëriñ la ci yoon bi man de awma sa pay ndax xam naa li nga ma ëmbal ci yéene xam naa ko boo waxul sax man xam naa fi nga ma féete te cofeel gi nga am ci man mënuma la ko fay kon ñu nit en tant que jullit ak taalibe li ñu man rek mooy ñaan yàlla mu bàyyi la fi nga yàgg fi lool ànd ak wér te xam ni lépp lu ma war a def ci ay bi ma suñu borom jox ci Touba danaa continuer di ko def ndax wareef laa ko def ci sama bopp liggéeyal sëriñ bi it laa ko def moo tax euh, daray àdduna du tere du changer loolu rawatina sa jëmm ji te nga wane ko mu mot sëkk ah ren nag ñëw nañu si màggal goo xam ne ci digg nawet la am muy nawet bu yàlla def ndox mi bari lool mu ñëw ay jafe-jafe ay ngaañ yu bare waaye ñu sant yàlla ndax bu ñu dem nawet dañuy ñaan yàlla may ñu ndox xëy na dañu ñaan lor bi bañ a bare waaye dañu toll si àdduna fu changement climatique yi taxee gis ngeen li xew ci réew yëpp Pakistan ci dëkk yu mag yi fu ne ndox maa ngi waame di yàq donc ñun itam am nañu si ay jafe-jafe rawatina dëkk bu mag bu mel ni Touba ak Ndakaaru ndax ñaari dëkk yooyu ñoo gën a am jafe-jafe ci wàllu ndox mi ba tax na bi waxee problème forage euh, ndox mi amoon di bal di génn ci kër yi ñu defaraat beneen programme ci urgence di def ay forage di ko pomper waaye yàlla def nawet bi tam ñëw fekk si loolu waaye diggante daaw ak ren def nañ programme bu am solo bu toll si ñaar fukki milliards ak ñett pour yaatalaat euh, mband bi nga xam ne muy bassin bu Kër Ñang bi nga xam ne juróom benn station bu ñu pompé ndox foofu lañ koy yóbbu donc bu ndox mi bëree nag ba ëpp loolu moo doon indi muy débordé te comme Touba amul géej gu ñuy yóbbu ndox mi faaw ñu wut ay bërëb yu ñuy yóbbu ndox mi moo waraloon ñu dem ba ci Daaru Raxmaan am fu benn bassin bu mag boo xam ne ren bi ndox mi bëree débordé na ba dugg ci tool yi def beneen bassin bu jëm pof di loolu it liggéey nañ ko waaye xam nañ ne doyul ndax bu ndox bëree ak dëkk bi ni mu toll laaj na ñu am beneen taxawaay moo waral ñu def bassin bu bees boo xam ne mu ngi ci kër kàbb juróom benn fukki hectare loolu mosul am ci Sénégal bassin boo xam ne juróom benn fukki hectare la pour di taataan ndox mi ndox mi jóge tuuba jaar Kër Ñang jaar Daaru Rahman jaar Pofdi waaye itam ñu ubbi beneen bu bees boo xam ne moo nekk Kër Kàbb kon lii ay liggéey la liggéey nag dafa àndul ak wax waaw nit tam buy liggéey dañ ko war a encourager war a encourager waaw góor ndax moom gën a farlu ci liggéey gën a dolli waaye nag senegal tam ni mu bindoo àla kulli dañu nangu rek depuis yàlla wàccee waaye daal nga xam ne liggéey bi nga xam ne maa ngi koy def fii si Touba ak ci senegal du ma ci wàññi lenn loo xam ne euh, doomu aadama dina tax ndax lii sama ngëneel mooy ëllëg parce que boo fi yàlla di jëlee ñoo xam ne fa ma indi réew mi moo sut fuuf ma ko jëlee loolu rek laa ci wut ci ngërëm waaw li des nag keneen ku mën a ñëw mën nga mottali ak saa yu ko yàlla tuddee kon sëñ bi maa ngi lay santaat bu baax forage itam yokkat nañ si ñeent yu bees benn bi Daaru Xudóos la ak euh, ngabu ak euh, Bobo Boborel Borolel Borolel amna benen tam bo ak Matlabul Fawzayni boobu bobu mom tambalina donc loolu yeb dañ koy def rek ngir fi dëkk bi tollu ak population bi dafa laaj deug deug taxaw taxawu bobu tam mënul mënul arrêter parce que bo arrêter rek moo indi gàllankoor donc dañuy fardi continuer toujours ci liguey bi

ziarah Senegal yep ci tànk boobu la fi euh, di la ndokali si bés bu màgg bi ñuy wajal muy magal di la sant di la gërëm cant ak ngërëm amul ap di la di ñaan suñu borom mu bàyyi la fi nga yàgg fi loolu ànd ak sant ñëpp di gërëm nyep di sant sa paral parole suñu di sant say rakk yi fi nyep ñoom ñëpp ak njabootu xaadimul xadim allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim